maa ngi jiital ci nuyoo bi le président Macky Sall. tàccu leen loolu waay. donc maa ngi koy ngërëm ngërëm lu amul at. ma di ko réitérer ma fidélité ma loyauté fu mu joxoñ foofu la mu joxoñul ma banque samay loxo. li ci des maa ngi nuyu autorité yi toog bi yëpp ku jum di nuyu mbooloo bi. à tous les investis di leen wax li Olof Njaay di wax wuro dem na këng ginnaaw gis yi affiché nañ leen ku nekk xam ku ñu la investir plus jaratul de longs discours wala des réunions interminables ma conviction ma philosophie a été toujours le terrain donc dem du terrain aller vers les populations convaincre les inciter les à voter massivement la liste de Bokk Lors de moo fi am avons xam le département Thiès la ville de Thiès réunir les fi avec ak Benno léegi nag rawatina ñoo ànd muy mburoog soow selon l' expression du président Idrissa Seck donc dañoo am beneen défi au-delà de la victoire dañu war a assurer raz-de-marée ñu xam ne Benno Bokk Yaakaar ak réew mi à ñoo produire victoire boobu donc maa ngi ñaan ñëpp bu ñu jógee fii ñu dem ci terrain bi dem vers les gens bu ñu bàyyi benn ruq ruq ruqaat bu ñu bàyyi benn gox nañu voter massivement ndax élection yi dafa am enjeu comme ça ñu offrir une victoire éclatante au président Macky Sall maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah